mbokk yi nuyuwaat leen di leen dalal ak jàmm ci xibaaru marax yi mu bokk ci la ca gën a fës doomi Texca bu këwoon dal di ubbiwaat ay buntam li nga xamante ne nag mooy activité yi jëm rek ci liggéey bi daal dinañu koy lancé ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet ci teewaayu jooxin bi ñu dénk wàllum mbay càmm geek la ca aayo aajo waay tam di ambassadeur bu Allemagne bu ñu sukkandikoo ci njiit bi di Serigne Boub lu ëpp ñaar junni ci ay nag mën na leen a dalal ci ab liggéey leneen même ci boppu xibaar yi lancement bu jëm ci vacances agricoles momit ci ñola ñolaaneem nek ci commune bu ne bu ñu sukkandikoo ca kako sos lu upp ci ñetti témer ci ay ndaw mën nañu fa jaxé am ci app xey jaarale ko ci bile projet euh, final bu tournoi bu jeunesse derrière Serigne Boubou dal dinañu koy jouer ci ayu bés bi ñu romb équipe bu équipe municipale ASC bu équipe municipale bi mo dal di nak dóor ASC xorom si ñaari bal ci ben mbokk li moy li gën fës yaatal bi ginnaaw bàkk bi lay doon. ko ak ab l'accident bu metti amee ci route nationale numéro 2 ca Ndande benn minicar moo fa ak benn camion nag gannaaw ba ñu sukkandikoo ci yenn ci ay xibaar fukk ak benn ci ay doomi aadama nag ñoo ca ñàkk seen bakkan dañu ca dellu siwaat ca na mu gën usine euh, bu Dometex ka féetee ca diwaanu kawoon daal dinay ubbiwaat ma buntam niki tey ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet lañu ñu nag amal lancement wu activité yi ca jëm bu ñu sukkandikoo ci njiit bi di Serigne Mboup euh, mu ngay xam ne nag lu ëpp ñaari junni ci am xëy euh, mën nañu ko fa am foofee ca usine ba ngir rek gën a mën a dooleel lu jëm ci wàllum textile fii ci Sénégal dañu koy teewlu ci micro télévision wu Sall. comprenez mon émotion et ma fierté de vous accueillir aujourd'hui mbégte la àndal tey di leen dalal ci ndaje mi jëm ci dooraat liggéey yi ñeel usine bu doomi Texika te mu nekkoon fii ci ay jamono ab exemple ci bërëbu liggéeykaay yu bari tey doon àndal lépp lu jëm ci waxum textile ginnaaw bi nga xamee ni lu ëpp ñaari junay liggéeykat direct ak sous-traitant dañu fi mën a xëy tey ji lu jëm ci waxum exportation ci tissu dafay dikkee Sénégal lu tolloog juróom benn téeméeri milliards ak ay investissement ci yeneen réew koppaax yu bari. et son collègue de l'industrie, autant nous devons manger ce que nous produisons waxoon nañu ko ci mouvement doomu dara patriote fi ci département bu Kaolack daal dinañu amal ci dimanche bi euh, le ñu ap lancement bu jëm ci vacances agricoles manam Walum mbay ci bile nakenyari, nak ñaari bokon na ci la ci gëna am solo rek naka la def ba ndoxum taw mi ñu mën ko saytu mu jariñ way tam lu jëm ci système intégré le ko tuddé ngir rek mbay mi daldi am ay njeexital yu am solo. bile cérémonie gisoon nag ki nga xamante ne mooy teewaayam di deex deex bi waaye itam ki teewal parrain ba bëccëg bi di docteur Ndene Mbodj dañu ci dellu siwaat ànd ceeg yaatal yeeg ay dëkkamaara

5 hectares moo fi nekk mais 5 hectares yi lu mu new new new new buñ ko développer daf ko agriculture système intégré man na créer man na créer 300 emplois man na ko détail légui ni 1 hectare bu nek bu fekkee man nga jël man mën nga soxla 50 personnes pour mettre pour produit agricole bi mu comme horticulture yi deng nga man nga soxla 20 personnes ci pisciculture bi apiculture bi man nga ci soxla lu mu gàtt gàtt benn vingt personnes rawatina. boo bëggee récolte rawatina boo bëggee def transformation kon ñun dañoo jàpp ne ak euh, avenir Sénégal mooy li nga xam ne moom la état bi déjà def mooy jël ministre de l'agriculture boole ko ministre de l'élevage dégg nga ba pare am objectif mooy ñi am souveraineté alimentaire waaye amut ci loolu mu créer secrétaire d'État chargé des coopératives ay encadrement paysan kon ñii li ñu wax ne bëgg nañu Sénégal moom boppam ci wàllu dund dundal Sénégal bay dundal ñeneen ñi ngi ci yoon wi lan moo ci des mooy askan bi moo tax ñun ñi nga xam ne ay entrepreneur agricole lañu ñu soobu waat dugal suñu loxo ci lii oo ci jeunesse bi waaye tamit oo ci rawatina jigéen ñi comme ni ma ko waxee sànq kenn wax du wax développement bàyyi jigéen ñi mu ñewoon teewal ki li nga xamee ni moom la ñu bàyyile woon bëccëg bile di docteur Dédé Mbodj nekk directeur bu mom moom Djidjack Fay mu ngay xamle ni bile initiative bokk na ci xeex ñàkk xeyum ndaw ni waaye itam dakkal li nga xamee ni moom moo di mbëkk mi. voilà très bien merci beaucoup gaal yi aussi euh, voilà merci euh, solution la si gaal yi xale yi emploi ñëpp ñu ngi xaar dugg si bureau toog loolu mënul nekk ñu xam ne mbéy mi mooy la première solution. le premier pilier comme nous ma ko waxee français mooy bant mooy samp bi nga xam ne moo ci développement lu nekkee juróom moom mooy bi njëkk ci juróom yooyu donc voilà mun na régler problème boobu dug ñu am jigéen góor ñi ak jigéen ñi ak mag ñeen ndaw ñi ñu casé gis ngeen léegi maa ngi fàttee wax ci français sax jigéen ñi euh, effort yi ñu def ak production yi ñu def ñu war leen accompagner utal leen ay partenaires également parce que ku produire ku produire war nga soxla foo jaayee te kudd bi nga xam ne moom la représenté war na ko mën a nekk pourquoi pas. Samba Ndao Tall mooy DRDR bu Kaolack ñëwoon teewal jëriñ ji ñu dénk wàllu mbay mi rafetlu na bi la doxalin la mu ca toftal moo di file ci diwaanu Sénégal am nañu lépp loo xamee ni ressource la ngir nag ñu mën a demal suñu bopp ci wàllum dund. lu ñu doon wax rek euh, mooy ni dañu rafetlu euh, bis bi tey nga xamante ni mooy lancement des vacances agricoles du Sénégal liñ ah jeunes de plus en plus am nañ conscience patriotique que ni dañoo wara a dugal seen loxo si li nga xamante ni mooy jëma réew mi kanam rawatina mbay mais aussi li ñu gën a seetlu mooy mobilisation bi nga xamante ni population Kaolack gi am nañ ko loolu lu ñu rafetlu la ñëpp dañoo war a xam ne ni li nga xamante ni moom la nguur gi bëgg suñ njëriñ la ñu ñëpp parce que dañoo war a bay li ñuy dundee te dañoo war a dundee lu ñuy bay seen développement agricole bu ñu ko waxee mooy li demee di doore si gopp ba jëm ba sa kudd ga te nit lu loo ñàkk am intervenir intervenir bu kuddu jotee moom da nga jël kuddu kon ñun ñëpp la intervenir tous les 18 millions de sénégalais. mu fàttali ne vacance agricoles yi nekk na ab doxalin bu yees boo xamee nii dafay gën a soññu ndaw ñi ngir nag ñu farlu ci wàllu mbéy mi ndaka ne jigéen ñi ngir nag askanu Sénégal bañ a jëggaaneeti dara ci loo xamee nii dafa jëm ci wàllum lekk wala leneen. communauté Kaolack Innov Tech lay wuyoo moom mii nag daal dinay amal ab ndajeem euh, lancement boo xamante ne nag daf cay door lii di ay liggéeyam ni ki dimanche bi ñu weesu euh, fii ci Kaolack mu nekkoon bëccëgub waxtaan ak weccoo xalaat jëm euh, ci wàllum entrepreneuriat waaye tam solo si nga xamante ne wàllum numérique am na ko ci jamonoy vingt et unième bi ñu tollu Sylvain Sanu Malade lay wuyoo di ki nga xamante ne nag moy coordonnateur ba mom nak mi ngi delu si ci li nga xam moy sen mbébet jëmele ko euh, ci bile liggéey dañu koy teewlu ci micro si di Sankar. objectif rencontre bi tay mo nekkoon suñu journée de lancement pour communauté bi journée officielle de lancement communauté Kaolack Innovtech waaw. Euh, kontaan nañ trop ci biñ oté ñom ñu ñëw uy si ñu parce que objectif bu Kaolack Innovtech moy dajalé ñëpp ñuy tourner ci tour écosystème entrepreneurial bu Kaolack bi. manam entrepreneur lu munti don ci domaine bu mu exprimer wu rek ñu ñam ñu dajalo don ben liguey pour redynamiser écosystème bi lool motax tay contane ñu nañ trop bu ñu ootee ñuy def agroalimentaire ñew ñu def digital ñew ñeneen ñu def horticulture ñew ñu nekk dans l'agro business ñew xam nga ni numérique bi actuellement ak fi aduna bi toll mëno def dara sans le numérique so xolé légui ñu ngi ñu ñu ngi bëy ak drone di di superviser toli ak drone. léegi yow tey mënoo jaay yem ci jaay rek dem marché ñëw wala di wër di wax ne am nga produit bi gis nga léegi de boutiques en ligne ñu ngi koy def le numérique actuellement mu ngi nekk ci xolu entrepreneuriat en tant que tel léegi lan nañ mën a wax jeune bi mooy na formé wu parce que entrepreneuriat tamit mënoo ko def te formé du ci wax kese du ci gis nit def rek man dangay def non na nga formé wu d'abord na nga ut xam-xam bi après soo ko jëfee pour li ngay def mu mun a antu mu mun la njëriñ actuellement nit waru ci ñàkk a xam dara wala na fexe lu mu néew néew mu xam ci lu gën a ndaw sax parce que numérique bi mënuñ ko def mënoo entreprendre actuellement nii nii nii yem ci genre agro business wala leneen sans pour autant nga am une maîtrise assez conséquente du numérique loolu moom moo waral ñu numérique nekk au centre parce que ñun luñ bëgg mooy ku nekk ñu fexe former ko mu xam tuuti ne serait si li gën a néew ci numérique mu xam ko ba mun ko jëriñ ci domaine bi mu nekk. autorités yi ñu ngi leen di xaar ci ñu jàppale ñu ñu jàppale ñu ci nan. nañu suñ gisee ay offre yuñ pour mën a postuler ñu jàppale ñu ci suñ amee euh, comme ça ay formation yoo xam ne ñun war nañ ko mën a def ñun ñu ngi fi pour ñoom et ñu leen di xaar ci bépp accompagnement boo xam ne dinañu jëriñ mais surtout dina jëriñ communauté bi parce que loolu moo moom mbabat Kaolack Innovatech mooy jëriñ communauté bi à travers de ñëpp ñi fi nekk ku nekk mën a jëriñ si communauté bi jëriñ sa bopp aussi Kaolack Innovatech mu ngi bëgg a def ay formation pour jeunes yi formation dans le numérique dans le marketing digital le pilotage de drones, nous noonu permettre jeunes de découvrir nouvelle structure instructure instruction plutôt nous pouvons utiliser dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais côté agriculture côté élevage Nous pouvons ay utiliser pour jëmal mbay mi pour xabaaru biti réew yi ñu yegg si ca dooree ko ca Libye dem ca Afrique du Sud ànd ceeg Aïda Camara ci li nga xamee ni moom moo nekkoon njiital réew Afrique du Sud di Jacob Zuma moom nag daal dinañu ko génnee ci parti bu njëkk bi la di congrès national africain ginnaaw bu nga xamee ni rek taxawal na ab parti bu yees bi nga xamee ni sax ci élection yi léegi ñu génn présenté woon nañu ko moom Zuma parti bi itam ñu gën ko xam ci parti MK amoon fukk ak juróom-ñeenti xob ci li nga xamee ni moom moo di jongante yooyu ñu génn ñëkk nag ci ñetteelu place bi ginnaaw bi nga xamee rek noppi nañu ci yooyu mu nekk mbir moo xamee ni ñu bëri ci ñoom dañoo jàpp ni loolee tax ANC perdre lu bëri ci li nga xamee ni moom moo jëm ci wàllum parlement bi mu nekk nag mbir moo xamee ni ñu ngi koy dooree nemmeeku ginnaaw bi nga xamee ni ma nga ca bopp nguur ga ci atum 1994 ba tey tribunal bu Libye daal di nag teg loxo ci dibéer ji fukk ak ñaar ci ay fonctionnaires yoo xam ne ni ñenn ñi ay anciens nañu ñenn ñi nga nekk nag ci seen fonction la mu leen teg ci seen ndog du nag moo di ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci ay at caabi war leen a féetee ginnaaw ginnaaw rek ba ñu leen joxoñ baaraam ci ab effondrement bu ñaari barrage ci at bi la ñu génn loolee tax nag ndox mu bëri dugg ca biir réew ma indi nag jafe-jafe yu bëri ci ville côtière bi la ñaari barrage yooyu nga xam ne nag ñoom nekkoon ci ville bu Derna ñu fukki fan ak benn ci weeru septembre la ñu nemmeeku rek ni dafa dagg ginnaaw tempête Daniel bi nga xamee ni indi woon na ay ndox yu bëri foofee ci est bu Libi bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi la ñu xamle moo di dagg-daggu miir boobee tax na genn wàll dëkk ba yëpp fees dell ak ndox mu daal di yàq lu bëri ci ay kër waay tam ñu bëri ci askan wa daal di dëddu dëkk boobee ci dibeer ji le nag tribunal pénal bu Berlin daal di jàpp ne ñoom fukk ak ñaari fonctionnaire yooyu mel la ko waral moo di seen xamee ni amal nañ ko ci mbir mi loolee tax naka ñuy dundu jëye jile bile mbir naka fësal nañu ko ci ab communiqué boo xamee ni mu nga bàyyi ko ci bureau procureur général bu réew ma tagat yaram doxé ko ak final bu tournoi bi nga xamanteni jeunes derrière Serigne bop ñoko dal di def nak niki ayubés bi ñu la ko amal mu nekkon nak ap jongante bo xamanteni do na dox ci digënté ASC bu équipe municipale ak ki di xorom si mom mi nga xamné nak moy mooy municipal sax dal di daan ñaari bal ci benn bu ñu sukkandikoo ci ñi di acteur yi nek ci walum tagat yaram beccëk bi dañu ko bolé ci li dara jalé walum sport fi ci Kaolack dañu ciy dellu siwaat ànd ceeg Sidi Sankara équipe municipale bu Kaolack daal na dóor ki nga xam ne moo nekk AS Xorom si ñaari bal si benn si ab compétition boo xam ne ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk si ginnaaw sëriñ bopp ñoo ko daal di taxaw boobu jongante nag durée lu toll ak ñaari weer mu nekk ab mbir moo xam ne yëngal na képp koo xam ne dafay daal di yëngu si lii di tàggat yaram fii si diwaanu Kaolack final boobee nag nga xam ne ñi ko organisé ñoo ko daal di jël daal di nekk nag ab proxndol si seen président ngir mu lancer ab appel si ñi nga xam ne ñoo nekk si coalition ànd nawle ànd liggéey ngir rek ñu bàyyi xel jeunesse boobee nga xam ne moo nekk si ginnaaw Serigne Mboup. li wax rek ne jeunesse bi ngeen gis depuis Serigne Mboup di ñëw accession à la mairie ñoom ñoo ànd ak moom te tey ñoom ñoo taxaw temm pour Serigne accompagner ko bëgg def à la de Kaolack mu def ko.

mu ànd ak ab délégation bu mucc ayib moom Mbaye Ngom nekk parrain journée bi waaye itam nekk secrétaire général du mairie bu Kaolack daal di rafetlu bu baax a baax bi la initiative waaye itam di ñaan ñi nga xam ne ñoo ngànk mairie bi ak waa Kaolack ngir ñu gën a mun a bàyyi xel jeunesse yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi. di wax ni nag les cadres yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de la mairie muy les adjoints au maire les conseillers municipaux dam leen ñaan ngeen gëstu jeunesse bii parce que lépp li ngeen xam ne moom ngeen di soxla ci seen domaine de compétence amna au niveau de la jeunesse muy côté artistique côté culturel côté sportif ingénieur amna au niveau de la jeunesse da ànd nawle ligue liggéey su ngeen je pense que li ngeen bëgg dinañ ko def tay ñom ñoo dajalé fi yëpp mën nañ yëpp sont représentés ta amul kenn ko xamné jox nañ ko passe pour mu ñëw fi donc projet bi xalé yi dañ ko gëm lañu accompagner la jeunesse lenen limay wax nak moy wa la jeunesse et toute la population kaolackoise ñu xamni le maire Serigne mbou def na fi loo xamante ni depuis des années depuis dix ans mu nekk président chambre de commerce de Kaolack nekk PDG CCBM bi nga xam ne mooy gérer cœur de ville ba tey depuis trois ans muy gérer la mairie de Kaolack def na fi ay actes yoo xamante ni dafa war a jëmale Kaolack kanam bu ñu nag yàqamti gestion municipale nekkul loo xam ne en première année wala deuxième année ngay gis les résultats il faut nga def 4 ans 5 ans voire même 10 ans ñu gis li nga xamante ni moom la Serigne Mboup di def Mouhamadou Diarra Sey, nekk chef de service départemental des sports bu Kaolack moom nag daal dina teewee boobee journée mu nekk nag ab mbir moo xam ne lam ci xamle rek moom moo nekk njëriñ bu tàggat yaram am si dundu doomu aadama bu ñu sukkandikoo nag ci kàddoom boobee initiative daal dina jël ab décision nag ngir mun koo wéyal bu baax a baax. sport compétence transféré la ñëpp gis nañ ni avec euh, l'arrivée de monsieur le maire Serigne Mboup

la jeunesse et le sport loolu man que naa dara donc sport compétence transférée te gis organisé nañ mais inshallah l'année prochaine ñun ñëpp dañ ci ñëw taw ba nga xamanteni ni tournoi bi dina dem fu nga xamanteni do doo leen ko xalaat dina dem sa kaw kaw inshallah rabbi ngir fàttali rek équipe yi nga xam ñoo jot participer ci boobee compétition dal dinañ am li nga xam mo nekk prime de participation ndax kat ko si nekk dal dina am ab ballon de foot ak li di mayo ginaaw loolu ñi nga xam ñoo taxawal bi mbir nak lañ ci dublu rek moy dal di ko woyal ba nga xam at bu jot danañ ko daal di amal fii si diwaanu Mboose ni ni mel nak leen kessé ko tax moy politique bi nga xam ki di maire Serigne Mboup daal dina ko tëral mu jëm si wàllum tàggat yaram mu jëm des ak moom ba tey ci xibaar yi ñeel wàllum tàggat yaram ay euh, ginnaaw nag ba mu génnee si ab victoire boo xam ne nag euh, mu ngi ko jëlee si combat bu doxoon diggante moom ak Gris Bordeaux Ama Baldé nag mu ngi xam ne ne mu ngi jéem a tracé nag ab trajectoire bu bees boo xam ne si lu jëm sa carrière la doomu Falaye Baldé boobu lu muy xam ne rek moo nekk jamono jii euh, ginnaaw ba mu perte combat nag bi nga xam ne li mu ci doon jublu rek mooy wut lii di roi des arènes kanam Modou Lo ba nga xam ne mu jul antu moom nag jamono jii pare na pour mun a bëri ak mbëri yëpp mu dem nag ba tur si ay tur ñi nga xam ne mooy Ada Fass Serigne Ndiagne ak sax Franc franc nee na pare nag pour jàkkaarloo ak ñoom si arène nationale ba nga xam ne dinañ mën a xam li mu mëne li si des kay mooy xool ba xam promoteur yi nga xam ne ñooy faral da tëgg lamb yi ba xam dinañ daal di jël engagement boobee ngir rek daal di ko tëggal combat ak boo yooyu nga xam ne ñoom la daal di tudd Al Nassr équipe bi nga xam ne nag moom moo nekk FC daal di na ko jàpp dóor ko ñeenti bal si dara mu nekk nag juróomi match yoo xam ne kii di Al Nassr daal dina ko tegle di daal di jël ay défaite si pré-saison bi si biir match boobee ki nga xam ne moo nekk Sadio Mané mu ngi woon ci biir waaye nag si deuxième mi-temps bi nag lañ ko daal di génnee si mi boobee sax la ki nga xam ne di FC Porto daal di nag dugal ñeenti bi yi nga xam ne nag daal na ko dugal Al Nassr ki nga xam ne nag moo nekk Nico Cancelos nekkoon ab milieu bu nekkoon file sa Barcelone daal di dugal eh, ñaari bii si dix-huitième minute ak trente et unième fa jógee nag IPM daal di amal ab bii boo xam ne mu ngi ko daal di dugal si lu toll ak ñaar fukki simili ak benn toftal si Gonzalo Gorze si 45e minute ñoom it daal di nañ dugal ab bi boo xam ne loolu rek moo daal di yóbbee Al Nassr défaite bi nga xam ne mu ngi ko daal di jël si kanami Porto si ñeenti bal si dara. mbokk yi moo fi ruuse woon ci xibaar jaajëfal leen ci teewlu bi ñaanal leen guddi jàmm te ko sàkku ci yéen jaa